This is not Senegal. We want this to stop. We want the government to really go back to the rule of law. This is how we are, we are governed. We want the government to allow us to march and demonstrate peacefully in the street. We are not able to do that. This is part of it. This is in, in, in, this in our constitution. Our right to organize, our right to, to demonstrate, our right to say that we are unhappy is something that is in our constitution. We, we are saying that this is the young people that have been uh, stealing, taking food, sugar, small item because they are they are doing that because they are hungry. The country is rich, but the people are poor. The people are poor because we have ill-conceived policies. We have a government that is a, a, small minority of people that are taking the, all the wealth of the, of the country and leaving the majority of the people in poverty, in, this, in disarray. This is what we want to say. And we're calling for three days of, of, of, of, of demonstration, peaceful demonstration, Monday, Tuesday, and Wednesday, where we're calling all mothers, all fathers, all young people, the whole Senegalese society to go out and tell, to, to, to tell Macky Sall, enough is enough. We want to stop. We want you to stop the violence. We want you to stop we want to stop, you know, uh, um, taking our democracy in your hands. We want our liberty and freedom. Thank you very much. Mesdames et messieurs, euh, si vous le permettez, si vous le permettez, nous allons euh, vous laisser poser quelques questions à Madame Yacine Madame Nefa Diop-Blondin et aussi autres membres de, mouvement. Mais avant cela, je voudrais euh, porter à votre attention cette information aussi importante que tout ce que nous, venons de dire. C'est que nous avons décidé, en plus de la saisine qui est déjà faite des Nations Unies et de la CEDEAO qui se sont exprimées, demander à la Cour pénale internationale de mobiliser tout le dispositif qui existe dans cette Cour de mettre en place un dispositif pour mener des enquêtes pour venir voir ce qui se passe ici au Sénégal. Nous ne sommes plus loin des crimes contre l'humanité. Au moment où nous vous parlons, quatre jeunes ont déjà perdu la vie à Bignona. Aujourd'hui, un autre est tombé à Diaoubé, abattu par des forces. Nous ne savons pas encore qui l'a fait, mais nous voulons simplement que l'État les institutions, la Cour pénale internationale et tout le monde se mettent en avant parce que ceux qui viennent rentrer en étant des forces de l'ordre sénégalaises qui reçoivent de l'ordre ou leurs autorisations de, des structures de l'État ne devraient pas traiter le peuple sénégalais de cette manière-là. Nous leur demandons de venir, nous avons déjà mis en place tout ce qu'il faut pour les saisir formellement par une lettre et nous demandons à toute la communauté nationale à poursuivre Parce que Bignona aujourd'hui, il nous est revenu que des jeunes, des, des, forces de sécurité sont rentrés dans les maisons pour chasser les enfants et les arrêtant même dans les familles et dans les concessions pour les amener, on ne sait pas encore où. Alors le Sénégal n'a jamais connu ce genre de situation. Et faire cela au sud du Sénégal, sachant ce qui s'y passe depuis de nombreuses années, cela est totalement inacceptable et peut ébranler les fondements de notre République et de notre nation. Le Sénégal est indivisible. Nous ne laisserons pas Macky et Benno Bokk créer une guerre civile factice, tuer des gens aller dans le sud, commettre des forfaits et parler de patronyme et de technique ou autre chose, cela est totalement inacceptable. Et nous voulons attirer l'attention de tout le monde pour leur dire qu'on ne l'acceptera pas et le peuple se dressera contre Le Sénégal et la nation sénégalaise restera cet exemple connu en Afrique de terre d'accueil, de terre plurielle, d'inclusion et de terre de partage et de solidarité. C'est ce peuple-là que nous avons connu Nous y sommes nés, nous y avons grandi, et c'est ce peuple-là que nous voulons léguer à nos enfants. Nous voulons aussi, au nom du mouvement, regretter, parce qu'on nous dit qu'il y a des gendarmes qui auraient eu sa main arrachée par euh, une grenade lacrymogène, je crois. Nous le déplorons parce que nous sommes Sénégalais. Nous savons que c'est un jeune Sénégalais, aussi victime que nous. Il n'aurait jamais été dans cette euh, bataille si des esprits mal intentionnés n'avaient pas comploté et n'avaient pas amené le Sénégal dans cette situation-là. Nous nous inclinons également et nous disons que nous sommes aux côtés de nos forces de défense et de sécurité tant qu'ils resteront dans les limites fixées par notre Constitution. Ils n'ont qu'un seul et unique chef, c'est la Constitution du Sénégal. C'est cela que nous voulons vous dire. Nous y reviendrons la prochaine fois. Alors, trois À partir de lundi, c'est déjà dit, l'appel à manifestation lundi 8, mardi 9, mercredi manifestation massive, vaste, partout, quartier, commune, département, pays, partout, y compris la diaspora. Allez même sur Mars. si vous le pouvez, pour manifester, pour respecter notre démocratie et l'état de droit. Je vous remercie. Vous pouvez maintenant poser des questions. Euh, euh, S'il vous plaît. Vous avez dit que le, le, le président Macky Sall avait perdu toute dignité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut organiser. Non, comme ça, il y a fii ñëw fi comme voilà donc euh, mu nekkoon rek direct bi nga xamante ni c'est l'opposition ñoom ñoo ñu lay ñoo doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi m d pour euh, wax li nga xamante ni moom moo xew depuis euh, quelques jours ci Sénégal par rapport à ces mouvements de violence ñu gis Fatou Blondin Diop Issa léegi gën nañu dégg njëkk nañu déglu Fatou Blondin Diop avant que Yacine Fall di ko wutu ak Cheikh Tidiane Dièye ñoom li ñuy wax du leen lu dul rek di dénoncer li nga xamante ni moom la ñu fi gis ci jour yi yëpp encore euh, sorti wu ministre de l'intérieur bi Antoine jom euh, pour euh, traiter de terroriste cette jeunesse là ndax loolu aussi nee nañu du lu ñu mën a supporter génn na dañu doon xaar leneen ci moom bien vrai qu'on qu'on s'attendait à la sortie du chef de l'État à défaut le ministre de l'intérieur mu génn Antoine Diome Euh, ci discours am c'était un discours boo xamante ni euh, xaw naa doy waar ñu xool euh, ki nga xamante ni moo di Serigne moo fa nekk Serigne Gueye bu fekkee nekk na en ligne ñu jël ko pour un point de la situation je pense que ci question réponse yi la ñu nekk noonu bu fekkee mën nañu am Serigne Gueye rek moom tamit bu fekkee jot ngeen ko en attendant Issa nga gis léegi ñoom mouvement Fatou donc M2D bi ñuy wax Serigne waaw voilà sëriñ yaay ñu toogal foofu ci euh, euh, jàkkaarloo bi nga xamante ne opposition ñu ngi koy amal ak taskatu xibaar yi mu mel ni euh, Fatou Blondin Diop moo njëkk a jël parole Yacine après Cheikh Tidiane Dieye un euh, résumé de li nga xamante ni nag wax nañ ko entre autres gis nañu tamit discours euh, ministre de l'intérieur wax nañ ko ci est-ce que présence également euh, y a une présence forte aussi des leaders de l'opposition foofu oui y a une présence forte des leaders de l'opposition am ñoo xam dañ leen représenté mhm. mais ni nga ko waxee rek l'honneur au def na mois de la femme bi ñu nekk moo tax jigéen ñi nga dégg wax mhm. voilà voilà xaaral ma jëkkandiku tuuti rek mhm. Euh, gis nañu fi le docteur Babacar Diop de FDS euh, Y'en a marre aussi euh, le docteur Aliou Sané est là ak beaucoup de membres de Y'en a marre benn intermittence Serigne da ngay xaw a isolé wu nga xaw a génn tuuti voilà ah, ah, voilà ci loolu la nekk Modou Fall boo ñu mënee xoolal également de ce côté du côté de la régie voilà bruit bi muy def mi ngoog je pense que c'est clair maintenant Serigne yow la ñuy tawlu voilà mu mel ni donc euh, dinañ ci euh, dinañ ko jotaat léegi Issa euh, ñoom ñi ñaawlu nañu li nga xamante ni moo di discours ministre de l'intérieur génn na on s'attendait à ce que ñoom ñu apaiser la tension dafa mel ni sortie bi c'est pas parti pour apaiser la tension du tout. Mhm. dafa mel ni Serigne itam mi ngi waat ci ligne bi mi ngi encore en ligne allo Serigne. waaw léegi Ramatoulaye danga may may tuuti ñu jël question réponse yi rek ma soog ñëwaat ak yow. d'accord. on te reprend tout à l'heure mi ngoog li ma doon wax léegi Issa euh, ci discours euh, ministre de l'intérieur voilà yoo xam ne ñoom ñëpp ay bal lañu leen reyee du jaasi du paaka ay balu fetalu force de lord lañ leen reyee loolu wax nañ ko cour pénale internationale te dina ci teg bëtam dina ñëw enquête pour gis loolu jawbe itam ka fa daanu tey di xale bu am 13 ans bal la ko reyee fetal ko mu dee tam mu ngi doon jàng école loolu lañu bëggoon ñu wax leen ko ngeen xam ko yéen sénégalais yi ni leen lii raam romb na léegi ñag bi kii fi toog bëgg a def démocratie gis ngeen ay nervi yi ñu génnee ci biir dëkk bi jox leen ni fetal gis ngeen vidéo yi tey ñu ngi nekk ci biir quartier yi di tiire xale yi loolu nag Sénégal bu mu ko nangu parce que leneen lu ñu def bu ñu ko continuer peuple bi dinañu jóg jàkkaarlook ñoom te lu ne mën na cee xew ñu ngi ñaan àdduna yépp ñu xam loolu crime contre l'humanité am na am na ñu ñun ay expert ak ay jumtuwaay ñu ngi fii fu ñu liggéey fa ci àddina bi ba xam ko dossier bi lu mu laaj danañ ko def jébbal ko cour international pour ñu ñëw ñu saytu ko ñu protéger population sénégalaise yi parce que benn nit bu ci ñàkk bakkanam rek lu ëpp la pour ñun parce que Sénégal xamu ko loolu lañ bëggoon ni nañ nañ leen nañ leen ko wax ndax lu garaaw la lu ñaaw la te mën naa indi réew mi ci jafe-jafe yoo xam ni kenn du xam foo koy jooye lii nag lii ñu yëkkati ñoom te jaru ko te mu yóbbu réew mi ci guuta bëgg nañu kilifa yi jóg wax ci mais jeunesse bi moom dina jël responsabilité jigéen ñi ak góor ñi mag ñi dinañu jël seen responsabilité toll nañ foo xam ne citoyen yëpp dinañ jóg seen responsabilité pour sauver Sénégal et sauver démocratie am loolu mooy li ñu ci bëggoon yokk euh, bu ngeen amee ay question Babacar docteur Babacar Diop a ngi nii Aliou Sané euh, soxna Ndey Fatou ak soxna Yacine ak yeneen membre yi ku ci am xalaat ak xam-xam rek incha allah mën na ko indi pour que ngeen man ko kii maa ngi leen di gërëm di leen sant mi ngoog euh, mu nekk rek euh, donc conférence de presse bi nga xamante ne opposition ñi ngi koy euh, amal jamono ji ñuy wax ak yéen ak suñu ndaw nag toogal ñu fa mën nañ ci jàppay point yu bëri yoo xamante nag ñu ngi ñaawloo li nga xamante ni moo di naa manifestation yi métti na violence bi métti na gis nañu également pillage yi nga xamante ni ñu ngi koy amal ak it sàcc yoo xamante ni aussi amul nenn loo xamante ni mën nañ ko qualifier mu di nag ay point yoo xamante ni ñaawlu nañu ko ak façon bi nga xamante ni avocat je pense député Ousmane Sonko ñoom ñoo ñoo ko njëkk ñaawlu li nga xamante ni doxalee nañ ko ak le juge le doyen des juges Samba Sall ci li nga xamante ni noonu la ñuy def seen client Issa gis nga li nga xamante ni moom la euh, ñoom opposition bi wax te ñu ndax ñi ngi naan sax dañuy wàcc ci terrain bi le lundi. voilà nee nañ dañuy wàcc ci terrain bi lundi euh, mardi ak mercredi mu di ñetti fan mm. yu nga xam ne moom la ñu décrété Fatou Blondin Diop euh, Ndiaye ak ki nga xam ne moo di. kii di Yacine Fall mm. ñoom ñaar nag déjà rama bu bu ñuy wax mooy c'est de guerre. Mm. parce que xam nga démb Antoine Félix Abdoulaye Diome ñi ngi ko doon dégg muy wax. bon ñu baree bari ñi doon xaar mu indiwaat ay décision mais boo xoolee menace la gën a def moo di xëy na jël la responsabilité jëlaat ko ci kaw opposition bi ak ñi nga xam ne ñoo di la jeunesse bi génnoon marche ñoom itam euh, li leen war mooy génn ñoom it jëlaat la responsabilité rejeté ko ci kaw état bi nga xam ne xëy na manifestation yi mën nañu lu ci bëree bëri euh, daanaka ñoom am na nu ñu doon doxalee xëy na manifestation yi du am loolu nag yaakaar naa mooy li ñuy wax rek c'est de bonne guerre te itam euh, déjà faw ñu xeex ko ñoom parce que une pression la war a mën a nekk boo xoolee déjà pression bi mooy lan mm. lundi ci la ñu war a dégluwaat Ousmane Sonko ndax buñ ko dégloo dañ Euh, ci mandat de dépôt wala lan loolu nag mooy waral itam faw ñoom ñu njëkkanteeg le temps parce que itam le temps presse euh, très vite même te boo xoolee euh, xëy na am na nu muy demee mën nañ ko bañ a mën a xeexali parce que nag euh, am na fi ay ay kaso yoo xam ne moom bu ñu ko fa yóbboo pour nit mhm. accéder fa du yomb mhm. loolu moo waral tam la pression di di a yëg du côté de l'opposition te itam sax Antoine Diome wax nañ ko ci pillage yi nga xam ne ñoom jàpp nañ en tout cas xiif moo waral askan wi loo xam ne moo meelu askan wi la te jàpp nañ ne ay ko yore couvre-feu bi itam wax nañ boo mhm. xoolee déjà Antoine Diome dafa mel ni ku ko doon anticiper ni ki démb ndax mi ngi doon wax ne déjà yenn ci ay mesures yoo xam ne euh, jëloon nañu ko dinañ fexe ba gën koo oyofal loolu nag xay na mooy li ñu waxoon ni ki démb rek jàpp na ne bu ñu oyofalee mesures yi xëy na gone yi du ñu manifester te ndax nag ñu ci bare bari ci ñu doon manifester moom. ci lim mhm. jàpp en tout cas ndax bu ñu ko déggee muy wax day mel ni comme si. couvre-feu bi ak li nga xam ne moo di euh, mesures fi teg moo waral ndaw ñi di manifester alors que du loolu te dañu war a na ci ba tey bokk na bokk na ci li mhm. euh, nga xam ne xëy na ñi ngi doon mbëkk mi nga xam ne moo fi nekkoon ñu bare bari faatu ci mhm. biñ ko interrogé mu ne nous ne sommes pour compter des décès ak yeneen ak yeneen yu nga xam ne quand ay erreur la yu mu doon répété yooyu yëpp nag moom la jël tey mhm. jal ko ci kawam bi mu wax démb euh, man nag fi may xaw a jaaxal mooy dañ ne Macky moo moo laaqutu ci ginnaaw ginnaawam ngir di wax. Mhm. mais est-ce que Macky Sall moo ko doon waxloo pourquoi itam mu war ko waxloo parce que nag bu fekkente ne moom la ñuy xaar. peut-être d'une part mën na nekk koo xam ne day xaar ba askan wi doyal bu askan wi sonnee père de famille sonn gone yi sonn moom mu doog a génn xëy na jël ay mesures yu gën a tar yoo xam ne pour nit ñi euh, di ko ñaxtu du yomb parce que nag am na nu nit ñi sonne bu génnee jël yenn mesures yi rek gars yi dañ nañ ci pour jàmm ci réew yi loolu itam mën na nekk mais itam mën na waxee ci coobarey boppam ndaxte nag c'est ministre de l'intérieur euh, boo gisee ni mu waxee démb nga xam ne euh, xam ne mi ngi ci moom ndax mu waxee comme si xëy na bu doon doon euh, gënoon na ci am ak tey kàddu yi dinañ ko gën a dégg mais tey dafa mel ni il n'était pas audible du tout te est-ce que moment même pour askan wi déglu ko rawatina ci déglu boo xam ne doo ci dégg benn mesure boo xam ne état na ko jël lu dul rek di wax ay menaces ak itam ne dans les prochains jours dinañu indi dinañ teg lii. alors euh, moom euh, les membres de l'opposition sax ngi doon wax euh, affaire arrogance doon waxee ci ci discours am loolu lañ ci gën a Adama nuyu nañ la. Rahmatoulaye ñu ngi leen di mhm. c'est compréhensible. Euh, par rapport à des parce que aussi seen damay profiter seen plateau bi. Mhm. pour wax ni euh, euh, depuis deux jours moi personnellement. Mhm. damay subir ay menaces de mort venant de personnes et de jeunes identifiés. ah oui parce que j'ai reçu des messages par Messenger. des personnes identifiées disant que dañu ñëw taal sama kër. mais vous avez fait le nécessaire. non c'est pas parce que nous n'avons pas peur suñu ragaloon duñ ñëw toog ci plateau bi. Mm-hmm. parce que aussi euh, li ñuy def xam nañ ko fi ñu jëm xam nañ ko li xew xam nañ ko donc euh, pour pour wax ni rek euh, cet terrorisme intellectuel qui existe aujourd'hui au niveau du Sénégal dafa laaj ñu dénoncer ko parce que ñun dañu am suñuy liberté. n'est-ce pas. si aujourd'hui on nous prive de notre liberté pour dire que. Euh, ñun waruñu wax waruñu far. war parce que nous qui euh, c'est qui. moi personnellement. parce que. un leader vous, Adama Fall, oui j'ai dit n'utilise pas la première personne de singulier. non parce que quand vous dites nous la population ci moment boobu lan la war wax. parce que ñoom également ñu ngi subir benn non xam am loo xamante ni. Hmm. Euh, je ne parle pas de la population dans son entièreté. Hmm. c'est un groupuscule c'est un groupe qui qui se manifeste. mais man li xew du groupe boobu. c'est des personnes identifiées. qui l'ont fait et je les ai identifiés. alors comme c'est identifié tant mieux alors dañuy dellu waat léegi ci yow ñu jël euh, suñu euh, Amadou Khalil Diémé suñu naataango bi nekk fële ci diwaanu euh, Ziguinchor Amadou Khalil. Amady Khalil ñu ngi lay nuyu bu baax. Mm-hmm. Euh, maa ngi leen di fay bu baax di nuyu ñëpp ñi teewul waxtu ji Walfadjri euh, leeru jamono donc euh, fii si Ziguinchor ci région bi daanaka si Ziguinchor sax am na calme bi nga xam ne du calme habituel depuis événement yi nga xam ne yooyu la ñuy Sénégal di dund depuis ñu commencé donc calme bi gëj nañ ko am donc depuis le matin dégguñu lu mel ni manifestation fii si mm-hmm. Ziguinchor lépp daal dëmb si guddi la arrêté gum mais lu ñuy lu yëngal Euh, région bi mooy li nga xam ne mi ngi am fële si Bignona fi nga xam ne euh, tey jii la am confirmation ni am na donc euh, ñetteel ki nga xam ne ñàkk na bakkanam te mu doon xale bu ndaw Euh, soo xoolee eh, at yi mu am mu doon euh, fukk ñaari at euh, dong la am xale bu ndaw boobu mm-hmm. moo daal di gën a àdduna donc si manifestation yi donc mu doon li nga xam ne yemul foofu parce que ba léegi gars ñu ngi insisté di naan am na keneen encore ki nga xam ne ñàkk na bakkanam foofu mais amaguñu confirmation ñu ngi déployé wu pour am exactement l' information bi nga xam ne moo nekk di circuler nekkagul bu officiel mais information la quand même donc foofu si toujours si am na tey jii fii si Ziguinchor mooy benn euh, drame ay xale yu for grenade yi euh, force de sécurité di mm-hmm. sandi euh, manifestant yi xam naa dañ ko sandi éclaté wul ay xale yu ndaw ku si gën mag mi ngi am juróomi at ñu daal di fort grenade bi di fo Euh, ñeenti xale yooyu yëpp amay gaañu gaañu yu métti instant yi nii ñu ngi si service euh, hospitalier yi donc mm-hmm. euh, ñu ngi leen di traité donc mu doon li nga xam ne am na si quartier bu ñu duppee Lindiane nekk fii si Ziguinchor loolu mooy li nga xam ne moo xew fii si mm-hmm. Ziguinchor mais leneen liñ si yokk mooy Casa Sport xam nga ni championnat de Ligue 1 professionnel dañ ko suspendre si événement yi moo ko waral équipe bi di ñibbi si mais manifestants yi nga xam ne ñu ngi yoon si route nationale numéro cinq barré yoon bi pendant des heures empêché donc ñu bëri pour egg ñi nga xam ne jógee nañ Dakar di ñibbi si ñu egg à temps euh, fii si si Thior donc Casa Sport dañu retardé seen voyage euh, si manifestation boobu euh, toog toll toog nañ foofu lu toll ay waxtu balaa ñuy dugg si Ziguinchor yàggul bu ñu dugg si Ziguinchor mu doon li nga xam ne tamit dañ koy yokk si information yi nga xam ne marqué na journée bi si Ziguinchor xale yi nag dañ ko tàmm di xaar ba mu lëndëm di commencé lu mel noonu ndaxte nañ ko def kenn xamul ñaan rek pour ñu bay parce que nit ñi ku nekk mi ngi naan euh, donc euh, yëpp yi euh, commencé na donc ëpp parce que tey jii fu na ne nii ñu ngi ci réunion de crise préfet de du département dafa convoqué benn réunion fii si salle de conférence bu mairie di waxtaan ak acteurs yi les acteurs du mouvement associatif li nga xam ne ñoo nekk ci église yi ñi nekk ci donc jumaa yi journalistes yi entre autres waxtaan pour xool naka la ñuy gérer euh, période de crise bi nga xam ne moom la Sénégal nekk di traversé donc loolu mooy information yi nga xam ne mën naa ko joxe euh, fii si Ziguinchor yi nga xam ne par rapport à cette crise qui traverse notre pays par rapport à cette accusation sur le leader du PASTEF te mu jur li nga xam ne mu ngi koy jur waxtu ji. Mhm. merci beaucoup Amady Khalil Diémé nous te laissons donc euh, nga continuer rek xool li nga xamante ni moom nga wax léegi muy euh, benn euh, waxtaan bu fa war am ak situation bi pour le moment li ñu mën a jàpp rek foofu la ci Ziguinchor daal nee na c'est l'accalmie donc ana lan moo tax la ko waral dañuy ñaan aussi accalmie boobu rek daal di continuer alors ñu dellu si waat plateau bi Adama sànq yi koy teewlu muy rek conférence de yooya gis nañu conférence de presse bi nga xamante ni euh, ñoom euh, waa opposition ñi ngi ko doon amal te li ñu gën a euh, décrier ci seen discours moo di la sortie du ministre de l'Intérieur justement on s'attendait ñoom ne nañu que on s'attendait à ce que le chef de l'État justement se saisisse mu génn pour que appeler à une à une accalmie appelé à au appelé calme mais ñoom li ñu gën a noté ci discours au ministre de l'intérieur bi mooy une certaine arrogance euh, aussi euh, jeunesse bi nga xamante ni mu ngi leen di traité de terroriste est-ce que c'est le moment est-ce que du moment bi dañ doon xaar ci moom mu indi discours boo xamante ni day apaiser mais pas buy gën a yëkkati tension. xam nga il faut comprendre la posture du ministre de l'intérieur du Sénégal qui assure la sécurité des personnes et des kooku suy wax sécurité rek lay wax quand on parle de sécurité quand des personnes quand nous voyons le vandalisme quand des magasins ont été brutalisés quand des personnes ont été blessées ñu bëri ñoo xamante ne dañ ci ñàkk seen bakkan pas ñàkk seen bakkan dañ ci ñàkk seen bagage taxawaay boobu rek la mën a taxawee parce que le président de la ne peut pas communiquer premier temps le premier président de la viendra pour lancer un appel d'apaisement ñu war koon jox ñi ko soxla gën a feebar gën a sonn ñu seen leen seen i kër ñuy def ay séance privée de vaccination ban nit mooy mën a gis loolu te doo révolté ñëpp a frustré loolu moo nekk ci mbedd mi président dañu koy ñaan mu mën a lire parce que boo dee président da ngay xaw a nekk sociologue mën a psychologue xam sa réew mën koo déglu ñoo ñoo nekk ci mbedd mi bu ñu nee ay terroriste la ñu waxuñu dëgg ay njaay lañu ay jóob ay saane ay ay jaata jéeg leneen ñoo nekk ay jeune lañu sénégalais lañu ñii sonn nañu ñii xiif nañu ñii demoon nañ ci bato yi dellu si amuñu liggéey seen yaay amuñu lu ñu leen jox ñu lekk seen papa liggéey ñu que voulez-vous qu'il fasse ñun dañu leen di comprendre sans le défendre ni woo ko kii que ce soit mu toj wala mu yàq waaye ñun dañu leen di duñu duñu duñu xarab kenn wala ñu def ko doon wax ci français ñu gis nañ que ne di ngeen amal manifestation euh, ci euh, diir ñetti fan ngeen non mosuñu wax mosuñu wax loolu damay bàyyi xëy na Aliou Sané moo mën ci répondre ah suñu texte suñu texte dama bëgg euh, mu leer suñu texte dañu ni président Macky Sall n'a pas la dignité d'être à du Sénégal bi ma ko amee ku laaj lan la ñu wax ma ne leen njiit dafa am yu bari yu koy ŋànk benn bi mooy la dimension légale maanaam yoon yoon nee na mooy président institution nee na mooy président waaye ngor ak valeur ak jom ak xolu nit ñi loolu la ñu ne bu ñu ko xoolee amatul maqaama pour nekk suñu njiit ñun parce que koo xam ni sa askan dañuy am jafe-jafe dañuy tiit dañuy jaaxle àdduna yàqu Covid nërmeel économie nit ñi sonn réew moo xam ne ñëpp a ngi wut nu ñuy tabaxe seen économie yow nga bàyyi sa réew am complot boo xam ne moo taal daay bii indi fii ba sénégalais di dee dañu jàpp ni dootoo njiit bu baax te mënatuloo am dignité wu nekk président noonu lañ ko waxee maintenant ku ci nekk nag mën nga koo déggee nu mu la neexee li ci des sénégalais yee ko moom ndax sénégalais yi dañu koy jàpp ñoom continuer mu jiite leen wala leneen la ñuy décider kooku ñun du suñu rool rôlu sénégalais yépp la ñun dañu def caractérisation def constat wax li nga xam ne nii loolooy suñu xalaat ngi leen di gërëm ma bàyyi Aliou Sané mu mu répondre ci man maay Cheikh Tidiane Dieye asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi présenté wu aussi maa ngi tudd Aliou Sané coordonnateur u mouvement Y'en bokk ci plateforme Aar Sunu Démocratie dafa am question bi nga xamante ni quand même depuis démb ay naataango journaliste ñu may woo di ma ci laaj ay euh, di ma ci laaj ba ci tey jii ñu ci bëri woo nañ ma ma ne woon leen ñu xaar ba ma ñëw fii ma daal di jël juste benn moment pour indi ay information yi war ci loolu ndax quand boo déggee ni Pape Sadio kamara ñu ngi ko boom mu jël bal fële ca bi nga dégg suñuy frères yi nga xamante ni ñu ngi leen boom ca euh, nu mu tuddati na ak ñeneen ñi nga xamante ni fii ci dakaar la ak feneen ci Sénégal ak ñenn ñu am yenn gaañu gaañu yu métti yi nga xamante ni dina bàyyi ay màndarga ci ñoom ba abadan boo gisee yooyu ñu lay wax ay waxu caat da nga koy tegee na le doo ci bëgg wax parce que yii moo man yooyu laa doon gérer voilà mais juste pour l'information il important que ma wax ni caat euh, démb mook ay téeméeri téeméeri jeunes sénégalais yi nga xamante ni. ñu ngi doon dox pacifiquement pour jëm ca place Soweto euh, ci manifestation bi ñu fa woote euh, ci la am ay éléments wu euh, on ne sait même pas xamuñu sax ndax ay nervi la ou bien ay gendarme la wala lan la parce que amut lenn luy gaal ni ay force de sécurité lañu que ce soit police ou gendarmerie on sait juste que tenue civile la ñu soloon ñu ngi woon ci oto bu ñuul kukk ak vitre teintée yu ñuul kukk yi nga xamante ni kenn mënul kenn kenn mënu leen kenn mënu leen identifier ci booru kër sëñ bi ci euh, Blaise Diagne bi la ñu daal di attaqué leen ñu bàyyi ñëpp nag seppi ci caat quatre personnes la ñu woon ñu jàpp ko mu ngi def sax signe bi ñu koy jàpp fekkoon na ak yeneen jeunes yi ñu ngi def euh, signe non violence su mouvement Y bi nga xamante ni moom lañ ñu ràññeewee mais dañ ko jàpp sot sotoo ko dóor ko dóor yu metti ñu yóbbu ko ci oto bi di jël crossu fetal yi di ko ko dóor ci kanam di ko ko dóor fépp waaw gaañ nañ ko bu baax mais ils peuvent pas entamer détermination pour le peuple ndax biñ ko kiiwee sax bugg mu ne ñu non non voilà peuple bi moo jóg il faut que résistance mu continuer man maa ngi ci jàmm ak salaam donc tey médecin gis na ko constaté na li am def na certificat médical mais le combat continue encore une fois ñun li ñu préoccupé mooy jeunesse bi nga xamante ni jóg na pour résister ah ñu koy boom di ko dóor di ko gaañ mu nekk fépp ci Sénégal ñun tey ci loolu lañ nekk di ci woy ak ñoom ci lëndi bi ñu jëm altine talaata ak àllarba bi ñu jëm ñu ngi woote fépp ci Sénégal fépp ci Sénégal Dakar ak fépp ci région yi ak diaspora bi nañu génnaat manifester incha allah pour que suñu démocratie ñu mun ko aar et que suñu dëkk bii mu bëgg euh, taal suñu Sénégal bii nga xamante ni moom la bëgg anéantir que ñu arrêté euh, bëgg-bëgg boobu mu am euh, et que jàmm mën a dellu si ci réew mi jërëjëf voilà mu nekkoon Alioune sànni rek moom it euh, bu Y'en a marre ñi euh, wax toujours ci li nga xamante ni moo di euh, li nga xamante ni ñoom la ñuy préparé ak rek daal di ñëw également ci discours ministre de l'intérieur ni ñu ko doon waxee léegi ak Adama Fall Adama Fall bokk ci appel ba tey Adama moom laa lay wax discours ministre de l'intérieur tey jii ñu bëri saluer wuñ ko ndax ni nga xamante ni waxee na ko ton bi mu waxee ak yëpp dañuy dem sax ba yaakaar ni est-ce que moom nekkul di jaawale casquette ministre de l'intérieur am

xam nga c'était bien lui. mais c'était très bien lui. ah il oui? était dans les rues de Dakar il était venu pour xool un peu pour s'enquérir de la situation. parce que aussi ça c'est le comportement responsable. Ah au-delà oui? même de circuler am na fu mu. trois jours après après non, non, non, cinq mois aussi non non c'est pas c'est pas trois jours après c'est normal le moment le temps n'est pas important l'essentiel c'est qu'il sorte pour s'enquérir de Adama, la situation mais le temps est important. j'ai dit l'essentiel c'est qu'il sorte pour s'enquérir de la situation du pays. et taxaw na Sandaga benn instant xool situation bi maintenant les décisions seront prises par rapport à beaucoup de choses je pense que le président de la République va se va se prononcer peut-être dina def communication bëri na nag ay canaux de communication par rapport à cette situation mën na nekk déclaration officielle mën na nekk à travers le communiqué du conseil. mais est-ce que c'est pas trop tard lay wax parce que déjà. Euh, may ma tuuti enregistré nañu cinq morts la wax. déjà cinq mois nga ni chef de l'état démb mi ngi woon euh, ci mbedd Dakar yi di xool un peu la situation mais la situation même bu loon sax ci mbedd yi je pense que fi mu nekk dina gis lii nga xamante ni moom moo xew. vous le président de la République n'est pas informé il est dañ ko renseigné. il n'est pas ah, bien sûr c'est l'homme le plus informé moom ngeen doon wax. non il n'est pas informé il est renseigné. xam nga l'information et le renseignement dafa bokkul. donc c'est quelqu'un qui est renseigné donc ce na ko à la minute mm-hmm. mais kilifa du gaaw a artu. ku artuwul du ga du rek kilifa du gaaw a wax yëkkati baatam ci yenn question yi et je pense que le en toute responsabilité le président de la République fera une communication face à la population sénégalaise pour waxtaan ak ñoom pour woote apaisement parce que foofu lañ toll ci situation bi nga xam ni fa la réew mi toll par rapport à la déclaration du premier du ministre de l'intérieur mhm. lan la ñu gis nous avons vu des magasins saccagés pillés mhm. nous avons ni nit ñi dañu dañu investir xaalis mu jël mu am population boo xamante ni dañu dem à travers ces ces ces activités là ñu yàq magasin jàmbur n'est-ce pas donc ministre bi lu mu mën a def mooy artu artu aussi parce que c'est important que celui qui gère la sécurité fasse une communication de sécurité une communication sécuritaire c'est-à-dire artu ci ñi nga xam ni wax ni dinañ leen identifier pour mën a régler cette situation la parce que suñu artuwul yaakaar naa ne dina am problème maintenant li nga xam ni mooy am ñi nga am na ñoo xamante ne duñ d'accord ci tonalité de la voix duñu d'accord sur le sur le comportement mm. mais le ministre de de l'intérieur posture bi mu bi mu jël démb posture boobu la mënoon jël mm-hmm. parce que y a des personnes identifiées dans ses activités. Oui, mais c'était pas un discours d'apaisement, Oui, je dit que c'était pas au ministre de l'Intérieur de faire un discours d'apaisement. parce que lui il gère il est garant de la sécurité des personnes et des biens dans dans dans dans, dans le Sénégal. Mm -hmm. c'est pas à lui de faire un discours d'apaisement c'est à dire bu ñu ministre de l'intérieur jël président place au président de la République. Mhm. président de la République va faire un discours. à la nation que il va s'adresser à la nation te c'est le souhait que nous voulons qu'il s'adresse à la nation pour waxtaan ak ñoom euh, delluwaat euh, ci Serigne mi ne ñu toogal fële ci euh, point de presse opposition bi Serigne allo Serigne waaw Ramatoulaye ramatulaay maa ngi dégg. Oh, voilà conférence de presse bi jeex na léegi nii mu doonoon euh, jataay ak taskatu xibaar yi bi nga xamante ni mouvement de défense euh, de la démocratie doon na ko amal tey jii ni gannaaw li am ca bay mbir mi xewee ba léegi muy ñetti fan yoo xam ni doon euh, daal di nañ koy manifester. waaye tamit li ñu ciy jëlee comme information ni ki tey nii rek mooy ñetti fan la ñu jëlaat ngir ne dañu ci manifester muy tàmbalee ci euh, bis ni euh, gannaaw suba di altine le 8 euh, le 9 ba le 10 muy altine talaata ak àllarba wax nañu ne bëgg nañu ñu génnaat defaat manifestation comme ni ñu ko doon defee. wala ba ñu bàyyi ñi nga xamante ni jàpp nañu leen waaye it ba li ñuy aar li ñu xamante ni moom la ñu bëgg a ñoŋal muy wàllu démocratie ba ñu ñoŋal ko. gis nga ne tey jii ni ma la ko waxee woon léegi ci téléphone bi rek honneur aux dames mois de la femme la ñu nekk le 8 mars bi xam naa la ñuy waajal seen déclaration ñaar ñi ko liir kenn ki di ndeyfaatu Fatou Ndiaye Diop kenn ki di Yacine Fall ñoom ñaar ñëpp ñëw nañu ci loolu waaye gannaaw bu ñu noppee ñoom ñëpp. am na ñu ñëwit faram-fàcce ko Cheikh Tidiane Dieye mu Sénégal bu ñu bëgg faram-fàcce na ci lu bëri ak ay questions yoo xam ni laaj nañu ko ko ak kii di Aliou Sané ñoom nag li ñuy ñëw wax nañu ci ñi nga xam ni ñoom ñoo faatu ni ki di bëkk démb ak fan yi yëpp Euh, ci ñi nga xamante ni faatu nañu ca euh, Ziguinchor ca Diaobé ak fii ci Ndakaaru euh, laataa ñuy départ sax ab mi une minute de silence la ñu def ngir ñaanal leen ci bi ñu noppee tamit la ñu tàmbali nag waxtaan wi lañu ci ñëw bokk na ci nervi yi nga xamante ni gis nañu ko nee nañu déclaration bi nga xamante ni ministre de l'intérieur def na ko démb ne mbirum banditisme la wax ba ne terrorisme ñoom nee nañ gisuñu loolu li ñu gis kay mooy mbirum nervi mbirum jaay doole boo xamante ni am na ci ndakaaru ñoo xam ni ànd nañ ak takk der yi te doonuñ ay takk der niru wuñu ko solo wuñu yëree takk der ba amal ay euh, métital yoo xamante ni amal nañ ko ci askan wi rawatina ndaw ñi moo tax bi nga xamante ni Aliou Sané jël na parole wax na ci ne caat bu yaanaa mar bi ñu koy jàppit ñoo xamante ni duñu ay policier ñoo ko jàpp loolu it ñëw na ci bu baax ci nervi yi ñoom nag jàpp nañu ne métital yi wala euh, violence yi wala toj yi ak ñaxtu mi yëpp boo gisee jeunesse bi di ko def lu ci ëpp dafa fekk ne dañoo xiif dañoo xiifal askan wi ba askan wi bii mu fippoo lu mu lekk la soxla moo tax ñu dugg ci yenn boutique yi toj ko ak yenn euh, service privé comme public toj ko ngir ne dañoo bëggoon lu ñu lekk ndax dañu leen a xiifal ñoom wax nañu loolu wax nañu it ci li nga xamante ni mooy jàpp nañu ko usmaan Sonko wala enlèvement la ñu ko mën ñoom ci euh, juge Samba Sall ñu ne li mu def du dëgg du yoon ndax ay waxtu yu waxtu yoo xamante ni ay avocats yi Ousmane Sonko xamuñu woon fan la nekk loolu it nañ ko loolu yëpp dafa bokk ci li ñuy wax ne dañuy sàmm démocratie dañoo bëgg dugal mbirum démocratie ci ak sange goo xamante ni euh, kenn du ko mën a bëtt kenn du ko cëxat cëxate ñoom nag dañoo jàpp ne euh, président la république léegi ci caxat caxate démocratie boobu la nekk ñëw nañu ci li nga xamante ni mooy ndaw ñi li nga xam nii def nañ ko yëpp dafa fekk ne ku bëgg dem ba dee ci géej gi braver la mer euh, dee ci affrontement yi du la jaaxal ñoom jàpp nañu ne loolu moo indi coow li yëpp. Euh, gannaaw bu mu caxat caxatee démocratie bi ndaw ñi dañoo sonn ci loolu lépp moo tax mouvement bi. ñëwati na ci libération otage yooyu nee na nañu leen bàyyi ci nu mu gën a gaawee wax na it ci ñu indiwaat ci nu mu gën a gaawee signalu Walfadjri ak Sen TV yi nga xamante ni fi mu ne léegi tey mu mat ñetti fan yoo xam ne ñu ngi leen tëj loolu yëpp dafa bokk ci luy nasaxal démocratie kon loolu lañ mën a jàpp ci li nga xamante ni mouvement de défense pour la démocratie wala de la démocratie amal nañu ko fa tey jii ci ab jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi muy doon euh, jataay boo xamante ni li ci gën a jàpp daal mooy bés altine talaata ak àllarba woote waat nañu ci li nga xamante ni moom mooy ay manifester ci réew mi ak ci àdduna yëpp ndax ñoom euh, bi ñuy bi ñuy wax sax gis nga wax nañu ci wàllu euh, nasaraan ci kàllaama nasaraan ngir ne dañuy jël témoin euh, ñi nga xamante ni mooy opinion internationale aussi xamal leen na leen li nga xam ni moom la ñuy ñaxtu sunu réew la soxal waaye soxal na àdduna bi yëpp muy wàllu démocratie ak li nga xamante ni mooy liberté doomu aadama loolu daal moom la ñu mën a jàpp ci conférence de presse bii tey Ramatoulaye moom mi ñu doon teewal fële ci conférence de presse bi nga xamante ni mouvement de l'opposition aar sunu démocratie ñoom ñoo ko doon amal mu mel ni ponk yu bëri rote na ci ponk yoo xamante ni nag ñaawlu nañu piage yi ak yooyu Adama je pense que euh, pour libérer rek euh, waxtu gi dañu war a woote ci rek euh, fitna gi mu dal tuuti comme ça ndax Sénégal ñun ñëpp benn lañu jàmm daal moom la ci la lépp xaj. c'est important c'est mm-hmm. important tout d'abord remercier leen pour permettre ma ma def mm-hmm. benn message bi mm-hmm. mais aussi lancer un appel à l'apaisement parce que aussi dafa am loo xamante ni jaru ko. Mhm. su Sénégal yàqoo ñun ñëpp ñoo ñàkk. su Sénégal embrasé woo ñun ñooy perte parce que aussi euh, ñun ñoo fi nekk nekk ci biir Sénégal di fi yeewoo di fi di fi di fi yeewoo di fi def lépp donc on lance un tout un chacun population bi yëpp. Mhm. ñu ànd ak dal xam nga ànd ak seeni i parce que aussi on peut se battre sans pour autant yàq wala casse. Mhm. on peut résister comme ils le disent sans pour autant ñu yàq sans pour autant ñu def leneen mm-hmm. donc euh, foofu la ñuy lancer un appel à la population di wax ne aussi le président de la République est à l'écoute mm-hmm. de de son peuple et je pense que il prendra la parole ci canaux yi nga xam ne moom la am merci beaucoup merci, merci d'être passé je rappelle membre de l'APR ñu fas yéene rek wéyal ak yéen ba tey ñëwaat ci li nga xamante ni moo di euh, waa mouvement opposition bi mouvement ak suñu démocratie ñi ngi ko doon amal léegi te suñu ndaw euh, toogal ñu fa muy euh, Serigne Gueye rek mu aju ci li nga xamante ni moo di discours chef de l'État discours plutôt ministre de l'intérieur waaye sàkku également ci ki nga xamante ni ñoo di justice bi ñu libéré ñi nga xamante ni dañ leen duppee ay otages publics donc également ñi nga xam le ni diirub ñetti fan muy lundi ndax lundi boobu sax ci la euh, le député Sonko war a dem jàkkaarloo ak doyen di juge ça mu mel ni nag ñoom trois jours yi yëpp fas yéene nañ ko nee nañu bi di woo nag population bi yëpp ñu fekk si bi donc mm-hmm. ko déggee ndax boo mm-hmm. xoolee lundi bi le 8 mars lay tombeel 8 mars bu nga xam ne quand euh, ñoom euh, ci la ñuy amal manifestation bi ci mm-hmm. lañ koy door war ko jëmale ba ci àllarba mu di ñetti fan yoo xam ne ko moom la ñuy door xam nag liñ naan naan ñam naa ko neex na bàyyi naa ko mënul nekk démb gis nañ ne bi ñu ko wootee donte xëy na gisuñu euh, ay leaders yu bëree bëri ca fa nga xam ne moo di manifestation bi encore une fois xëy na nag c'était d'une part pour éviter euh, coloration politique bi nga xam ne moom la ñenn ñu doon wax bàyyi les jeunes devant ñu manifester seen manifester bopp bu ko defee kenn du ne ñoom ñoo nekk devant mm-hmm. euh, ces manifestants di leen xam ba ngir ñu mën a taal dëkk bi ndax boo xoolee mm-hmm. jur ñoom itam jël nañ doom ji euh, sànniwaat leen ko dafa mel ni kon doom ji jamono ji narta am baay muy euh, ñi nga xam yàq yi nga xam ne moom lañ mm-hmm. amal ci dëkk bi mais terewul nag c'est une bonne guerre pour ñoom euh, ñu mettre la cadence mm-hmm. continuer teg ci seen tànk ndax nag gis nañ ne déjà manifestation yi am na loo xam ne jot na leen ko jural ndax ni ki démb dégg nañ discours bi bu baax a baax gars ku nekk di woote à l'apaisement te le président itam naa ne dégg na ko ndax comme ni ko ñenn ñu confirmé que ni démb moom génnoon na di mm-hmm. xool li nga xam ne moo xew ci dëkk bi yaakaar naa nag bu fekkent ne génn na itam xëy na même bu toogoon ca biir këram sax dina xam li xew ci dëkk bi kon muy génn mm-hmm. di ko xool mm-hmm. mi ngoog ba tey ñu gis ni ci discours ministre de l'intérieur bi moom li muy wax mooy justement euh, pillage yooyu ak seen de euh, saccage yi ak naka noonu dinañ leen euh, traqué dinañu également arrêté ñooñu te traduire devant la justice mu mel ni kon gis nañ ci sànq rek ñu ngi koy wax yaakaar naa ni da ngay gis démb seen yi nga xamante ni aussi du seen boo xamante ni day rafetal ji jël foofu ay euh, ravitaillement aussi day wane rek euh, benn en quelque sorte benn euh, signe de pauvreté peut-être. dina wane signe de pauvreté ndax déjà ñi nga xam ne ñooy yàq bu ñu yàqee ba noppi day am ñu jaaraat ci ginnaaw di buub la nga xam ne moo fa nekk ci wàllum lekk. Mhm. mais itam beneen côté bi ci des dina xam dina am ne moom lay wane ndax wàllum li nga xam ne moom la ñuy yàq daanaka lu ci bari bari mën nañ ne réewum France lañ doon wax ne ñoo ko moom te boo xoolee France gi nga xam ne Rahma ñoom ñoo nekkee ci ginnaaw loolu lee di ay yoo xam ne dañoo dañoo jàpp ne ñoom ñoo ko yore eh, ci réewum Sénégal yàgg nañ leen fi di ŋàññ Auchan dégage déggoon nañ ko fi xëy na eh, d'une part mënuñu woon a dégg bu baax a baax seen voix ndax am na ñoo xam ne doon nañ ko jéem a contrer ba xeex bi sax daanaka métti woon na trop mm. une guerre eh, une bataille médiatique boo xam ne doon nañ ko ci amal mais terewul gis nañ fi mu mujjee daanaka nga xam ne lépp dafa continuer woon waa Auchan di amal seenam jaay mm. tey bu manifestation amee am ñoo xam ne ñoom dem nañu ba réussir attaqué benn xam nga mm. déjà nag mbir yi daanaka day mel ni lu ñuy coordonné bu kii yàq beneen te bu ñu yàqee ba pare dem ñoo xam ne dañuy jël yaakaar naa nag loolu nekk na ay mhm. message yoo xam ne mën nañ ko envoyé à l'endroit du gouvernement du Sénégal ndax quand même liggéey bi bëri na loo xam ne moo ci mhm. waroon d'accord Issa ñu dem rek euh, jëli ji euh, Abdoulaye euh, Diamadio mu nekk rek fële ca Diawbe je pense que am na information yu mu ñuy wax aju ci benn nit goo xam dafa ñàkk bakkanam Abdoulaye nuyu nañ la waaye ñu ngi leen fay nañ leen mhm. mu mel nii dafa li nekk ci pays bi yëpp tey tamit jaww bi ñoom tamit dugg nañu ci ci danse bi comme on peut le dire donc euh, xale yi tey dañoo jóg. Euh, ba booru 9h voilà ñu euh, commencé manifester ci kaw euh, tali bi euh, national numéro 6 bi bon bi ñuy dajaloo nag ñu commencé d'abord ci mairie bi mairie bi ñu jot a toj li nga xam ne mooy vitre mairie bi mais fort heureusement que dugg ñu ci biir ñu yem juste ci toju vitre yi mais nag bi ñu fa jógee dafa mel ni comme ku joxe ordre nañu dem brigade boobu la ñu jógee ñu dem ci brigade bu bees bi nga xam ne yàggul buñ ko ubbee fii si euh, Diaoubé donc euh, ñu dem si brigade ba wala ñu fekk fa gendarme yi fa nekkoon ñu jaa ñu jaamarloo ak ñoom euh, ba mu metti mais France finalement affaire yi mu gën ter après nii la gendarme yi jógee ñoom tamit ñu riposté euh, mais finalement dañoo mujj euh, bàyyi vraiment euh, yoon bi parce que c'était très compliqué si boobu nag ci échange yooyu nag ñu ne am na ñoo xam ne dañ leen jot a ay bal mooy xam ne lu wër te wër Euh, ñooñu daañu woon foofu dañ leen di évacuer directement si hôpital régional bu Kolda mu nekk six personnes yoo xam ne euh, gis nañ leen dañoo gaañu gaañu yu metti ñenn ñu ngi naan dañ leen tiire ay bal ñenn yi naan dañ leen tiire euh, du ay bal donc mu mënuñu confirmer ne lan lañ leen dóor mais c'est sûr que dañ leen gaa dañoo am gaañu gaañu yu metti te yóbbu nañ leen Kolda ba heure bi may wax nii léegi la ñu amaat beneen xibaar boo xam ne benn gos bi ñu bi fa yóbboon kooku malheureusement mujj na ñàkk bakkanam donc c'est dire que euh, xale boobu moom gaañu na mu des euh, cinq personnes yoo xam ne ñu ngi foofu ñeneen ñi nga xam ne gaañu woon nañu tamit euh, ñoom ñu ngi leen di traité fii si au poste de santé bu jaww bi mm-hmm. donc c'est dire que tous les services euh, yi nga xam ne nekk nañ fii ci jawbe mooy la douane mooy euh, le service d'hygiène mooy euh, eaux et yooyu yëpp dañoo dañ leen taal mm-hmm. ak station Total bi fi nekkoon donc si yaa ñett ñetti station ñoo fi nekk si ñetti station yooyu benn mooy bi ñu bi nga xam ne moo station Total boobu la xale yi làkk fële nag ci brigade bi moom bi gendarme yi demee desu dara desutu fa dañ ko Euh, yàq yëpp taal taal taal taal ak euh, huit véhicules yoo xam ne ñun ñu nga fa woon gaare euh, yooyu tamit taal nañ leen donc dara desu fa comme comme matériel tey donc heure bii daal yàlla def na commencé na calme bi commencé na boy dem nañu ba sonn fu mu nekk nii commencé na calme bi commencé na dellu mm. donc vraiment heure bii lii moo fi xew si jawbe te affaire bi kéemaane la parce que franchement fureur xale yi munoo ko munoo ko mesurer donc euh, vraiment pour le moment am na xale bu góor bu gaañu bi doon def euh, au moins en classe de quatrième normalement donc il devait il doit être en classe de quatrième mais c'est juste c'est dire quand même ce qui est confirmé que élève euh, CM la ah, donc moo fa ñàkk bakkanam heure bi te mu ngi mu ngi tudd Sadio Camara Mm-hmm. ñu mm-hmm. jaajëfal la bu baax Abdoulaye euh, ci euh, xibaar yooyu nga xamante ne baaxee nga ñu ko depuis Diaobé mu mel ni euh, Moustapha tamit fekk si nañ ci Moustapha ñu dalal la nuyu la dalal la également. fay bu baax Ramatoulaye di am mbégte ànd ak yow di nuyu Issa. di nuyu également ñëpp ñi ñuy seetaan à travers les réseaux sociaux notamment Facebook et YouTube. Mm-hmm. Moustapha kon yaa ko dégg léegi muy xibaar bu rote foofu la ci Diaobé je pense que ñoom it manifestation yi xew Dakar moo goxaati région yu bëri commencé nañu jël mhm. euh, ci suba ñi ngi doon wax Vélingara ñi ngi wax tamit yeneen gox Diaobé aussi jël na mhm. ba léegi Abdoulaye wax ñu benn mort doom je pense que bu ñëwee fekk si yeneen yi muy euh, sixième yaa yaakaar na ni bakkan yi commencé rot nag mi ngi bëri euh, dëgg la mais li mhm. ma bëggoon a commencé rek mooy li nga xam ne moo ñu war ñun ñëpp waa Walfadjri te ñu koy def ci suba ba léegi mooy jaajëfal Euh, wax dëgg yàlla Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk au Sénégal et à travers la diaspora un peu partout à travers le monde bi nga xamee ne bi ñu coupé signal Walfadjri ba léegi euh, yàgg nañ xam ne nag ñi ngi seeni xol mhm. mais fan yi dañu ko wan parce que à travers li nga xam ne moom moo ànd ak ñun di ñu seetaan booba léegi mhm. on se dit quelque part comme ni ko Bougane Gueye waxee ci suba su yeboo Babacar Diagne mu tee signalam mhm. euh, parce que te <laughs> nit ñi ñi seetaan ni ñu ko bëggee en plateforme yëpp lu am solo am solo la et damay jàpp ne à partir euh, d'aujourd'hui dafay marquer beneen tournant mhm. dans la vie des médias au Sénégal beneen révolution ñu comprendre finalement que ni les médias ça ne se regarde pratiquement plus à travers euh, la télévision bi nga xam ne moom lañu ñu am habitude di ko am ci salon bi ñëpp mhm. toog di ko seetaan mais ça se à travers ce petit machin là qu'on appelle téléphone portable et ça c'est extrêmement important mhm. les autorités yi nga xam ne ñoom ñooy suspendre ay chaînes ak yu demee noonu war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax euh, ni nga ko waxee noonu la demee ñu nekk ci benn euh, situation boo xam ne Euh, euh, quelque part dama naan bettul kenn. Mhm. parce que bien avant même l'interpellation l'interpellation de Ousmane Sonko il y avait des velléités bul fàtte ne euh, bi ñu fi tegee couvre-feu amoon na fi ay jàppante yu metti yi fi doon am ba militaires yi ñoo bu ñu génn. Mhm. dem fu mel ne Médina dem fu mel ne Grand Dakar dem fu mel ne ñaari tali. Mhm. di fa maintenir l'ordre guddi gi. situation boobu les Sénégalais continuent di ko vivre muy situation bu difficile Sénégal nekk réew moo xam ne dañoo am habitude. bu ñuy teg ñu nekk ñu koy supporter tant que ñu ngi jàpp ne lii moom yàlla rek moo ñu ko teg mhm. parce que nit ñi de naan la mbas mi yàlla rek moo ko fi andi euh, xiif mar ñàkk loo fajoog yooyu ñu ne mbiru yàlla la mais euh, buy dem di dem di dem ba am beneen fee bu ci ñëw muy l'élément catalyseur mooy dañoo yàgg jàpp ñun mhm. ne suñu justice bi ni muy doxee du noonu Sidi Lamine daf daan wax ne sos tiis la dalay sos ba pare sos teg la tiis mhm. alors ñu yàgg koo jàpp mais yu bari jaar fi les Sénégalais ont de fer Euh, bi nga xamee ne mbiru Ousmane Sonko jóg na les analystes averti en tout cas ak les observateurs ñoom ñëpp doon nañ wax ne nañu def attention euh, parce que li euh, dal Karim Wade mu jàll dal Khalifa Ababacar Sall mu jàll su dalee waa ji buñ deful ndànk du jàll pour plusieurs raisons nag d'abord parce que yooyu xëy na c'était un pouvoir bu doon doog a installé wu y avait toute une charge politique boo xam ne man ko interpréter mais bii dafa am beneen souffle boo xam ne moom la Ousmane Sonko ak ñi mu àndal indi façon de faire la politique au Sénégal mu bari ay ndaw à travers le Sénégal ak la diaspora ñoo xam ne la politique mosu leen intéressé mm-hmm. ay xale yu jigéen ay xale yu góor mais à travers Ousmane du Ousmane Sonko rek mais moom ak ñi mu àndal ni ñuy defee ils se disent que pourtant c'est possible mm-hmm. c'est quand ils c'est possible mooy c'est possible ñu jëlaat réew mi ñu moom mm-hmm. téewal ko suñu bopp xam nga espoir boobu yëpp ñu placé ci kenn nit su demee ba nga bëgg ko dindi ba nga war ko daaneel da nga ko war a teg fu leer fu dëgër a dëgër man li ma gëm mooy su fekkoon ne la le Sénégal l'état du Sénégal dafa gérer cette affaire Adji Sarr avec Ousmane Sonko avec sérénité avec sérénité euh, fàtte comme ni ma ko wax fii depuis le début le nom de Ousmane Sonko def fa noowu Issa Tine wala keneen euh, affaire du demee nii mais bi nga xamee ne mbir mi am na tous les sénégalais ont commencé ñu bari di interroger wu naan waa ji ñimewul def loolu. après ñu gis la gendarmerie def ses enquêtes. Mhm. ñu jékki-jékki ñoom sénégalais gis les PV enquête ci mbedd mi sénégalais ku bari xel la. Mhm. kuy xalaat la ñu di analyser. Mhm. ñu xalaat di gis il se pose beaucoup de question ci viole parce que yàgg nañoo gis des histoires de viol. ñu koy traité et tout. mais les Sénégalais ont commencé à se poser des questions état bi choisiroon dans un premier temps ne en tout cas le pouvoir oui. la majorité ne duñ ci wax parce que c'est une affaire privée ça les intéresse pas mm. ñu ne googo ñu dem ba ci biir man je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour commettre cette erreur là mm. mooy jékki-jékki mobiliser toute la task force euh, des communicants ministres députés tout ce qu'ils mm. ñu xëy mel na rek benn mët bu ñu jeté ñu occupé ndoo les médias du Sénégal pour charger Ousmane Sonko à partir de cet instant de cet instant là les Sénégalais se disent ah non on n'est plus dans une euh, affaire privée on est dans une affaire complètement politique puisque on est dans une affaire complètement politique on mène le combat mmh. dans la rue loolu moo tax nga gis ñu génn ci mbedd mi mmh. tamit génne ci mbedd mi mu am ay leçons yoo xam ne je crois que un pouvoir intelligent euh, je ne suis je ne suis pas en train de diir que ni mhm. intelligent mais un pouvoir qui agit avec intelligence daf koy jàng bu baax Ramatulaay gis nga boo gisee manifestation yi gis mhm. takk der yi mhm. ñu jàkkaarloo xale yi xale yi di leen chargé bay gaañ ci ñoom takk der yi ànd ci ak sérénité ànd ci ak professionnalisme nga dem ba gis ay image ay xale yuy manifester fekk ay policiers seen oto di euh, di leen accolade di leen ñuy waxtaan di reetaan un état intelligent danaan y a quelque chose qui se passe dans mon pays que je que je comprends pas mhm. parce que bu fekkoon ne ay terroristes lañ wala ay de grands bandits bu ñu jàkkaarloo policiers yi du ñu agiré noonu ak policiers yi mhm. yaa ngi dégg wax bi mhm. mais quand le ministre de l'intérieur a fait sa sortie hier pour dire que c'est du grand banditisme c'est du terrorisme moi j'ai dit que on allait peut-être vers un week-end calme, calme. mais bu ñu deful ndànk dinañ am leneen lu jur te loolu effectivement mooy ñu nekk di dund à Diaobé déjà y a eu mort d'homme manifestation yi fa démarré suba ba léegi yeneen gox ci Sénégal les gens vont vont manifester et comme j'ai entendu Alioune Sané le dire tout à l'heure mm-hmm. lundi c'est comme si tout comme tout comme les gens ils vont essayer de reprendre le travail le lundi après un beau week-end de repos mm. tu as l'impression que ceux qui ont manifesté diggante mercredi ba tey mm. ils vont prendre un beau week pour se reposer et que lundi dès qu'on dira que Ousmane Sonko jóge na section de recherche jëm tribunal euh, mm. ça va recommencer donc il faut que l'État xam nan lay gérer cette situation là mm-hmm. tey l' état du Sénégal le Sénégal en général dafa am benn chance ñi ko jiite ñëpp muy seen chance. Mhm. muy dafa am des relais yoo xam ne loo bëgg a def mu të état bi boo ca jaaree def ko. muy mhm. kilifa diine yi. man quand quand j'ai entendu Serigne Mountakha Bachir ñu ne lii la wax ak président Macky Sall. Mhm. dama ne problème président Macky Sall mooy lenn mooy waxoon nañ ko ko ci Karim Wade. waxoon ko ko ci Khalifa Sall à chaque fois sa réponse c'est quoi. bis bu accès ci man xam nga moom lan lay woowee bis bu accès ci man mooy ñu dem procès atte ba tëj waa ji moom mu ñëw gracier mais ces gens là ne vont pas attendre ça parce qu'ils ils ont compris que su fekkee ne dañuy toog naan c'est une affaire bis bu demee ba accès ci président de la république mais boobu dina fekk ñu atte Ousmane Sonko ba ba ba kii ko ba ba voilà yàq casier judiciaire même bu ko gracier du bokk élection mais ñi il faut que le jàkkaarloo sur le ci mbedd mi ñu xam ne ils ne sont pas plus intelligents non non euh, tu les as euh, pratiqués ah, hier euh, gis nga ah, ci mbedd mi c'est des ah. gens très réfléchis mm-hmm. maintenant une manifestation c'est une manifestation quand on est dans une période de tension comme ça bari nañu sant njaay yoo xam ne dañ ciy voilà mais bon voilà avant ñuy jël Cheikh Dieng je pense mm-hmm. qu'également sorti ministre de l'intérieur bi il a jeté de l'huile sur le doon wàcc ci terrain bi kenn traité wu leen de terroriste américains yi ba ñuy attaqué au Capitole également on les a pas traités de terroristes mais dafa dee propos yoo xam ne du participer pour indi benn calme. oui mais c'est utilise moom boo xam ne doo dégg benn ministre ci benn démocratie bu mag di ko utiliser contre ses propres parce que bu fekkee ne des terroristes euh, capables nañ def ñetti hmm. fan yi ñu def ci Ndakaaru mais Ramatoulaye il faut qu'on peur pour notre sécurité parce que cela veut dire que ils nu mu leen neexee mhm. ministre mënu ci dara man dafa am lu ma oustaz Assane Diouf wax ci suba ma yaakaar ne euh, euh, ma ne ko oustaz yow mii da nga war a nekk conseiller ministre de l'intérieur mhm. cest à un discours boo xam ne moom lañ doon xaar ci le mhm. président de la république ak le ministre de l'intérieur mooy lan wax xale yi xale yi ci mbedd mi ne leen yéen ñii xale yii ñi ngeen di xeex ak muy takk der yi ku ngeen ci gaañ da ngeen dem seeti ko hôpital ku ngeen ci faat di dem jaale ko takk der yi également mm. képp kuñ ci gaañ dinañ dem jaale ko képp kuñ ci faat dinañ dem jaale ko kuñ ci gaañ buñ def naag ñoom ñoo koy fajaat mm. parce que ñoomi neen la benn ah, waaye wax na dem ci rajo bi ne dafa am ah, benn sëriñam bu ko woo ne ko moom li ko jaaxal ci mbir mi mooy ba xeex bi commencé ba léegi ay taalibeem ñoo koy woo ci takk der yi ay taalibeem ñoo koy woo ci manifester su ko ñiy waxee ne ko sëñ bi waxal ci là je lui ai dit que euh, ñi ñiy manifester ñëpp mm-hmm. moom moo leen njaboote li leer mooy tey bu buñ ci génn ñiy manifester ak takk der yi mm-hmm. ñi jàkkaarloo di xeex ak journalistes yi ak ñëpp bu buñ ci génne woon ñi nga xam ne mm. Serigne Mbaye Sy Mansour lañ def seen kilifa génn ci ñi nga xam ne Serigne mm. Mountakha Bachir lañ def seen kilifa génn ci ñi nga xam ne euh, euh, euh, Cheikh Maye Niass mooy ah. seen kilifa ak ci laayeen seen kilifa mm. mais day jeex tàkk donc ñooñ boo bëggee régler seen problème il faut que ngay jaar ci relais yooyu et malheureusement on a un pouvoir qui n'utilise que ko intéressé wala saa yu mu bëggee defar affaire am ok dañuy dem jëli ji Cheikh Dia xool la situation côté de Vélingara ni ñu ko doon waxee ci suba ñoom tamit ñi nga doon yëngu Cheikh oui. Cheikh Diagne ñu ngi lay nuyu. Euh, na ngeen def foofu ci Vélingara ak. Euh, mbir nga euh, xamante ni xew na fi. waaw sa jàmm jàmm rek tey moom suñu ndongo yi dañoo xëy teel daal di jóg daal di ci jaww bi daal di attaqué poste de gendarmerie bi. Mhm. daal di lakk lépp li nga xam ne mu ngeen foofu bu nekk oto. Euh, matériel informatique bureautique lépp lu fa nekkoon daal bon seen kër yi lépp la ñu lakk waaw donc euh, dañoo gis ne dax sax euh, bilan bi mu am cinq blessés graves donc gendarme yi ñoom boo gisee ñu rëcc sax àlla yàlla ak intervention mhm. élément armée bi nga xamante ne ñu ngi basé woon fële ca Koungkané mhm. donc mais loolu taxul xale yi du noonu la dugaat ci dëkk bi daal di eh, incendier yàq eh, poste de douane ak eh, eaux et forêt tamit ñu jaar bureau service d'hygiène ñu yàqu foofu yëpp mhm. balaa loolu la ñu demaat tamit noonu la demee jamono ji ca Diaobé euh, ñu fàtte rek ne que tension bi mu ngi fii nit ñi ci tiitaange la ñu dëkk ndaxte ñëpp xam nañ ne que département bu Vélingara dafa amee ñetti frontière ak ñetti réew maanaam Guinée Bissau Guinée Conakry Guinée euh, ak Gambie nit ñi dañoo ragal ne que en tout cas ñenn ñi mën a daal di dugg ci département bi rax ci mbir mi indil euh, askan wi jafe-jafe ndaxte fu mu ne ni euh, takk der yi mënatuñu assurer sécurité population bi fii ca euh, Vélingara donc fii ca Vélingara nag nañ ko waxee nañ ci aljuma ji tamit population bi génnoon nañ daal di réclamer la libération de Sonko noonu la ñu station Total bu Vélingara daan di dem euh, en tout cas kayaasi tamit euh, këru député maire bu Vélingara donc situation bi fu mu ne ni moom euh, mu ngi takarnaase ndaxte xale yi ba léegi ñu ngi ci mbedd yi dal di xaar xam xam xamatuñu li ñu bëgg a def mais en tout cas l'essentiel gendarme ñu ngi ñëw daal di renforcer ñu ngi fu nga xamante ne ñu ngi woon Euh, donc euh, situation bi daal en tout cas lu ñu mën a jàpp moo di euh, foog ni askan wi ci jaaxle ci tàngi la ñu nekk population yi ñu ngi réclamer en tout cas libération kii di Ousmane Sonko. allo. allo oh, oui oui Cheikh donc manifestation yi du côté ci ñi nga xamante ñooy wàcc amul benn kenn kuñ ci nemmeeku waaye ku ci jëlee ay gaañu gaañu. waaye xam naa ñoom juróom juróomi nit sax ñoo fa am ay gaañu gaañu yu métti sax ñu hmm. évacué leen sa centre de lañu euh, waaw ay ndaw ay ndaw waaw ay ndaw la ñëw diggante dix sept et vingt la ñu am euh, donc euh, situation bi noonu la demee ci jamono ji nit ñi nag ñu ngi ragal ne que situation bi reprend parce que ndaxte population ñu ngi génn daal di bëgg attaqué disons armée bi nga xamante ne ñëw leen à la rescousse quoi. Mhm. donc euh, situation bi noonu la demee ci jamono bi euh, bon euh, kër monsieur le maire bu Vélingara donc armée bi gen ñu ngi koy protéger donc mën nañu wax ne fii ca Vélingara situation bi noonu la demee pour l'instant benn bakkan en route si mais nag dañu xam xam la ñu jàpp moo di mhm. juróom ñooñu en tout cas